les faux médicaments nu mu ko mën a tuddee rek ak li jëm ci traficu médicament yooyu ak li mën a jural nit ñi parce que Gambie dafa am coow la fa am médicament ay sirop yu jige Inde ñu jaay ko ay xale lu toll ci cinquante bu ma juumul ah. Euh, ah soixantaine ñàkk seen bakkan ci ay xale yoo xam ne dañoo naanoon sirop bi. Mhm. jëndoon ko ci ay pharmacie mhm. moo tax nag ngeen jug yéen di alerter. Mhm. di fàttali ni docteur nga en pharmacie. Euh, lu waral ngeen jug ci li xew Gambie di dànkaafu Sénégal ci côté boobu. waaw merci beaucoup eh, Omar comme ni nga ko waxee noonu la ñëpp suivre nañ actualité bi par rapport ak euh, euh, les cas de décès yi am en Gambie ci siro yooyu nga xamante ne fa lañ ko fa lañ ko doon commercialiser. Mhm. foofu li ñuy wax rek mooy produits yooyu c'est pas des produits qui son commercialisés au Sénégal officiellement. jaayuñ ko waaw Sénégal dafa am circuit officiel. Mhm. parce que tey boo ñëwee ci mbirum garab au Sénégal. Mhm. dafa am ñaari circuit ñoo am. dafa am circuit public bi nga xamante ne pharmacie nationale d'approvisionnement moo koy assuré moom mooy jox les structures publiques hôpitaux yi ak poste de santé centre de santé yi mm-hmm. mu am beneen circuit boo xamante ne c'est le privé mm-hmm. boobu moom mooy ravitaay moom mooy jox pharmacie privée yi mooy pharmacie yi ngeen di gis ci mbedd mi mm-hmm. euh, ci ci koñ yooyu pharmacie officielle yi nga xamante ne ñooñu seeni garab dafa am ay fournisseurs yu leen koy jox au Sénégal ñu am ci quatre fournisseurs. Mhm. donc loolu mooy circuit officiel yi. Mhm. donc médicaments yooyu ñuy coow Gambie nag bon dégg ngeen communication euh, agence bi agence euh, ARP agence de régulation pharmaceutique wax nañ ci. ordre mhm. des wax nañ ci donc yooyu amul ci circuit officiel au Sénégal. mais nag li ñuy yàgg di coow. te ñëpp di ko dégg moo xam au niveau de l'ordre moo xam au niveau du syndicat des pharmaciens chaque jour ñu ngi koy wax c'est le circuit parallèle parce que circuit parallèle boobu maîtriser wuñu ko mhm. donc loolu nag ah il faut ñu sensibiliser yokk parce que ñun aussi ci suñu role bokk na ci rôle de sensibilisation population pour ñu gën a xam ñu moytu mhm. parce que garab voilà muy circuit parallèle marché illicite marché parallèle nga xamante ne bon euh, ñi koy gérer c'est des non professionnels mhm. fañ koy jëlee kenn xamu ko parce que tey fii produit buñ ñu au Sénégal dafay am lu ñu naan AMM mhm. autorisation de mise sur le marché te loolu pour nga am ko dafa am ay conditions yu ñu lay tegal ñu am Sénégal aussi am am na jumtukaay yi avec euh, le laboratoire national de contrôle de qualité produit bi fi war a ñëw il faut que dañ koy contrôler ba xam mhm. ne bi ci nekk dosage bi conforme na efficacité bi ñu xam ko xam lépp xam provenance mën koo tracer parce que produit li ci am solo aussi il faut mu am traçabilité. Mhm. ñu mun a xam fu mu jógee ak ba fa muy jëm. donc loolu nag circuit parallèle bi loolu amu ci ku nekk da ngay jóg dem jëli condition de conservation yi ça pose problème ki koy yor kenn xamul kan la xamul nu ngi koy defee yow da ngay ñëw mu jox la nga dem. alors que li ñuy wax le mhm. médicament c'est un couteau à double tranchant noonu la mënee indi aussi safaan donc loolu aussi ña koy yor ak ña koy gérer dafa war a nekk des spécialistes mhm. donc loolu pour revenir au médicament yooyu tant yaa ngi jëlee sa médicament ci circuit officiel yi mhm. moo xam dans les hôpitaux dans les centres de santé les postes de santé ou bien dans les officines de pharmacie privée médicament yooyu ñuy wax Gambie amu ci maintenant nag soo ko demee jënd ci mbedd mi nag loolu moom personnel de santé bi mënuñu ko garanti mënuñu ko mm-hmm. assurer. Mm-hmm. donc moo tax aussi il faut population bi gën ci bàyyi seen xel bu ñu soxlaa garab tey répartition tey boo jëlee Sénégal la pharmacie mooy li société yi nga xamante ni ñoo gën a répartir au niveau national il y a une mm-hmm. répartition une très bonne répartition géographique tey foo dem ci Sénégal lu mu reculer reculer di nga fa fekk poste de santé wala pharmacie officine bu fa nekk donc la répartition géographique est bien respectée donc la disponibilité financière aussi tey garab cent franc sax am na ci mhm. donc problème mu coût ça pose plus mhm. parce que tey quel soit montant bi ngay yor tey am na garab yoo xam di nga ko soxla di nga ko ci mën a am à moindre coût donc yow yaakaar naa ne population bi amatuñu benn raison boo xamante ne dina tax tey ñu war a dem dans le circuit parallèle di fa mais mais mais balaa ñuy sori yenn saa yéen da leen a jiiñ yéen ñuy liggéey ci pharmacie doon professionnel mhm. yéen encouragé fraude boobu maanaam yéen euh, médicaments yi ngeen yor. yu mhm. baax la jaar ci circuit normal bi. Mhm. mais daf ci am ñoo xam ne dañ ciy jaxase euh, garab yooyu ñu naan fraude la wala mu doon médicament yoo xam ne autorisé wuñ ko. Mhm. Euh, yéen a koy légaliser à travers vos pharmacies est-ce que loolu dëgg la. non non non non loolu moom c'est un faux procès. amul parce que tey le pharmacien c'est un c'est c'est c'est un professionnel qui est assermenté qui a prêté serment. te aussi on a des structures de contrôle yoo xamante ne aussi ñu ngi fi. donc pharmacien bi tey mënul def lu ko neex c'est pas possible. Mm-hmm. te aussi amul gisuma nécessité bu war a tax tey mu war a dem jëli un produit en Gambie indi ko alors que de li mu soxla tey dans son officine c'est disponible ici au Sénégal donc là c'est un mauvais procès du gars di wax ni mais mais non je vois pas kon ñi ciy dugg fan lañ koy jaayee. ñi ciy dugg ci mbedd bi lañ koy jaaye donc yooyu moom bon c'est ci ci mbedd mi ci boutique yi ci marché yi voilà ça c'est le léegi jox ça peut-être. Ah, c'est que li li euh, bi c'est mën nga wax ne bon peut-être yow mën nga wax ne man bokkuma ci. Euh, mais li Omar wax est-ce que yaakaaroon ni lu mel noonu mën na am parce que bu fa duggee rek day mel ni euh, blanchissement d'argent day mel ni après bu fa duggee duggee rek set na maanaam lew na te tamit sans dépend parents ay nit ki ci ngëmam ak yooyu tamit day jouer parce que secteur boo dugg ci réew mi am na ay njaaba njalle waaw mais am du ñàkk am na ñuy njaaba njalle ci biir waaw loolu moom waaw <laughs> loolu la Omar di wax euh, à cent pour cent mënoon ne tout le monde est fiable à cent pour cent mais je mhm. sais que en officine vingt à 99 pour cent waaw c'est des gens qui sont vraiment respectés et xam nga li li lay wan ne la li lay wan ne la njaaba njale am na. Hmm. parce que euh, ministre bi sax boo gisee mu ne moom nañ publier kii beeg yooyu ci seen kii pour nit ñi xàmmee euh, produit bi. Hmm. loolu lañ ciy kii parce que peut-être am na pharmacie yoo xamante bi ci kiiwu légal boobu mën na am. ñoo xam ni am nañ yooyu. non non non non amut euh, ah boo gisee ñu ne nañ ko. publier pour nit ñi xam ko. waaw c'est par rapport tey yow boo ko gisee tey ñu publier ne la sirop bii. waaw moo indi les conséquences en Gambie. tey yow nga bugg dem tey ci boutique bi ci koñ bi dem wala ci non boutique bi ci koñ bi moom ku fay jënd moom la ko dal moo ko moo ko teg boppam mais sirop boobu tey boo ko jëloon ñàkk xam li xew waaw boo ko jëloon tey ñàkk boo jëloon sirop boobu tey jógee Gambie wala xaw ma euh, nekkoon bi tey nga yor xott bi waaw di wër pharmacie Sénégal yi sur les mille et quelques pharmaciens yi nekk Sénégal hmm. doo ko si fekk ci benn pharmacie parce que tey le pharmacien il n'a pas gisuma intérêt bu war tax parce que tey ñun ni ñuy liggéeyee tey non man xam nga par exemple Omar damay gis pharmacie boo xam ni. Mm. maanaam day soog a démarré. Mm. daanaka bakaas yi bariwut. <laughs> waa ji doo gis njaay mu muy jaay mais da ngay jékki-jékki rek affaire bi fees. voilà ak xaalis bi bari. waa ji commencé man damay ragal ne est-ce que du ñooñu ñoo ñëw. ci suuf bi jënd garab di leen rokkas. non non gis nga tey yéen a yore kii bi légal ñoom ñoo yore lële. loolu tamit loolu xam nga lu tax. Ah. mënul demee noonu. tey Sénégal pharmacie. Mm. mën ngaa ibbi sa pharmacie. nekk docteur en pharmacie. Mm. nga ibbi sa pharmacie avec zéro franc. waaw. Mhm. tey boo déposé parce que dafa am chaque année dañuy génnee arrêté. Mhm. génnee zone yi nga xamante ne ñoo war a am pharmacie. Mhm. waaw ñu ne fii war na am fii mën na am fii mën na am. yéen ñi soxla. ngeen defar seen dossier dem déposé gars yi traité dossier yi jox leen autorisation pour ngeen ibbi foofu ay pharmacie. yoroo ñaar dërëm boo ibbee pharmacie. waaw da ngay dem ñun fii am nañ ñu ngi liggéey ak les fournisseur mhm. fournisseur yi ñu ngi fi banque yaa ngi fi foo yóbbu sa sa arrêté. Mhm. decréation création bi. waaw fournisseurs yi bu dee bu dee banques yi nga dem dañ la financer nga ñoo defar sa local. Mhm. fournisseur yi ñoo lay indil garab jox la doo joxe ñaar dërëm. doo joxe da ngay jaay verser quoi. dañ lay indil yaa leen di wax. temps laa soxla. soo gisee nag booy soog a bi nga gis bëreegul parce que boo ñëwee ci zone bi maîtriser goo si flux bi. da ngay jël par ndànk di xool demande bi naka la demee mm-hmm. maintenant en fonction de la demande nag nga commencé di renforcer di def parce que chaque localité aussi dafa am réalité. mais est-ce que fournisseurs yooyu fournisseur Gambie waru cee mën a. ci nekk Sénégal ñeenti fournisseur lañ am. Hmm. <laughs> officiel. Hmm. seen produit yi fii lay jaar bu ñëwee port lay jaar war a aéroport. Hmm. te balaa muy génn il faut ñu dem ci agence bi ñu defal leen autorisation douane da koy vérifier vérifier ko mu soog a ñëw dugg. donc médicament Sénégal moom y a traçabilité boo xamante ne moom. macha allah boo ci jëlee beneen feneen aussi day feeñ. Ah, man man fi ma bëggoon dama ne eh, yii di am nii yëpp est-ce que nekkul ni benn automédication bi da ciy bokk je m'explique. Mhm. des fois nga romb nit ci taabul muy jënd garab. nga romb nit ñu naan la bi ñokket laak bii nangam laak bii lii la bii day maye yaram ak bii dugg na fi génn fii. Mhm. est-ce que tamit nekkul ni seen xeex ci loolu ngeen ko war a accès muy euh, marché parallèle boobu ngeen di wax mhm. te nit ñi. tamit ñu sensibiliser leen ci automédication parce que tey jii li may faj mën na bañ a faj maître mën na bañ a faj Omar. Mhm. parce que bokkuñu organisme. donc est-ce que mënu mënu leen accès seen xeex ci automédication parce que automédication moom mooy jur lii yëpp. loolu bañ ci commencé xeex yaakaar naa ni ba man sax ba ma commencé ràññee ci pharmacie depuis 2001. Hmm. ñu ngi xeex loolu dem nañ ba def ay affiches. taf ko partout. mais man bëgguma citer tur mais am na fii ci biir Dakar foo xam ne boo fa duggee. garab bi maa koy euh, garab goo bëgg euh, datant de sax ils te le fournissent facilement. xeex nañ ba sonn ñu ngi ci loolu nag état bi nag pouvoir public ah, ñoo ci war a jàpp aussi population bi aussi ñun li mën a def léegi sensibiliser population bi jàpp ci lan kër bi ah bi nga wax de ah bi jaay garab <laughs> loolu kay état boo ko fa mën a jële <laughs> parce que ñun état moo yor moo yor moo yor loi moo yor règlement ñun li mën a def mm-hmm. mooy dénoncer te ñu ngi koy dénoncé. waaw mais ñoom mais sëñ bi aussi benn côté benn côté prix bu yomb. xam nga benn médecin xoola euh, euh, Boubacar Boubacar juste rek balaa may jox maître Boubacar. ndax 100 francs sax léegi boo demee pharmacie am na produit. waaw 100 francs wala 75. d'accord mais Boubacar aussi est que nekkul ni am na ay faux pharmaciens yu nekk ci seen biir xam nga lu tax parce que euh, pas plus que daaw rek jàpp nañ fi un faux médecin boo xamante ni exercé na des années. ñu koy doog a xam est-ce que tamit noonu faux médecin amee faux pharmacien mënul am est-ce que yéen couvrir ngeen aussi faux pharmacien moom waa waa s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que ci biir Sénégal yëpp recensé ngeen ni pharmacien yi fa nekk yëpp wala ñiy jaay garab ña fa nekk ñëpp dañ ko jàng xam ko gis nga pharmacie moom hmm. officine laa wax de waxuma hmm. nag yeneen boutique yi tey boo demee Touba di nga fa gis lu ëpp deux cent pharmacie yu mag a mag mais la fa nekk pharmacie officielle motul 60. Ah, ah bon voilà loolu laay wax. loolu yooyu foofu. xanaa amu leen ci droit de regard. loolu ñun. loolu dañ mënul dara. mënuñu ci dara. ah ok li ñuy def instant yi nii. politique bi <laughs> direction jël agence ah, léegi. mooy essayer d' autoriser le maximum de vrais pharmaciens. Mm. Mm. liste bi ñu génnee semaine passée pour mooy li ma doon wax sànq. Ah. autoriser les pharmaciens pour ñu ibbi. soo de xoolee ñi ñu autorisé ñu war a ibbi Touba presque war na mot une dizaine wala une quinzaine yoo xamante ne c'est des vrais pharmaciens yu war a ibbi loolu yëpp pour au moins ñu essayer étouffer le secteur. Euh, pharmacie parallèle mais pharmacie officielle yi ibbi yëpp. Mhm. c'est des vrais pharmaciens parce que dossier ngay indi teg. Mhm. dossier boobu dañ koy traité au niveau de la direction léegi mu nekk ARP agent de régulation pharmaceutique. l'ordre des pharmaciens personne nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit à l'ordre si. chaque année danga nga koy renouveler soo ko renouveler wul tu deviens dans l'exercice illégal ñu xool euh. waaw man bon si fi bétti laay ñëwee laay laay duggee ba tey mooy gis nañ ne est-ce que pharmacie si boppam n'empêche que pharmacie nit ñi dañoo jàng am ay diplôme ba egg est-ce que gisee nit ñi duñ ko gisee comme affaire hôpital wala tubaab xam nga Sénégal yi dañoo xaw a ragal affaire tubaab ak yooyu mm. affaire hôpital ak yooyu. Ah. moo tax nit ki di au ba pare mu cher des mm. fois wala nit ñi ah, accueil bi. wala ñu ñëw wax olof wala dugg ci télé yi def ay pub parce que da gis ne nit ki ci bitig bi lay gën a ñemee dem te bitig bitig bi risque la des sax moom dina xam ne risque la. Mm-hmm. mais foofu lay gën a ñemee dem. Mm-hmm. jënd benn comprimé ka dem pharmacie. Mm-hmm. léegi loolu est-ce que doo leen xalaat ngeen xool lan moo ko. Ah, lan moo koy waral loolu loolu communication ko war a parce que tey dans les pharmacies le pharmacien moom ci may wax ci les cadres supérieurs les plus accessibles ci lañ bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. pour voir un pharmacien soxlawuloo audience. Mm-hmm. soxlawoo jënd ticket. waaw soxlawoo ah, loolu moom nga laaj. boo nee pharmacien bi laa soxla da koy gis. te il va te recevoir ndax niñ ko organiser aussi am na lu ñu naan espace de confi confidentialité. boo ñëwee tey gis pharmacien bi soxla ko am na fu mu lay dugal yàgg moom kese parce que aussi on est tenu par le secret médical mm-hmm. et c'est très important te loolu ah, dañ koy dund dañ koy dund nga dem mu waxal la mm-hmm. orienté la jox la ay conseil mm-hmm. li nga xamante ne c'est à son niveau mu def ko li nga xamante ne nag dafa dépassé niveau mu orienté la aussi loolu ci suñu mission la bokk mission de conseil et d'orientation ah. mais léegi li tax affaire bi gën a me nag am sa feebar bu ndaw nga dugg ci internet. waaw hmm. hmm. hmm. ah, loolu ki nit ñi bi taal xool gis kii des fois sax mën na am sax loolu dalu la. Mhm. mais loolu ngay foog rek nga commencé da ngay xool xool xool ba ci traitement bi. nga bëgg a ñëw pharmacie ne ko nag jaay ma tel gaaw. mooy automédication bi may wax non. léegi nag chaque jour ñu am problème nag ak ak population bi ci loolu. voilà parce que des fois ñoom du ñu mën a comprendre léeg-léeg sax ne la yoo xam ne da ngay jaay rek may jënd. <laughs> parce que parce que dafa am nu mu war a demee. Mm. am na ci médicament yoo xamante ne li ñu naan de vente libre te loolu aussi sax boo ci bëggee euh, dépasse yenn kii ñu freiné la. Mm. mais loolu c'est un cas. boo ñu ñëw ci politique bi. waaw ah, aller plus vite parce que on a peu de <laughs> temps. Euh, euh, tey jii gis nañ Abdoulaye Diouf Sarr biir APR. Mm-hmm. gis Mimi ture bàyyi mel ne ñi mer. di gedd bariwul mais ñoom am na nañu courage wax seen frustration yow depuis combien de temps yaa ngi APR. waaw man nag yàgg naa liggéey ak président. ba ba ko liggéey parce mille depuis 2011 2010 2011. parce que boobu nekk moom Sénégal na Djibouti laa nekkoon. Hmm. waaw donc élection présidentielle yi fa la ma fekk. Hmm. mais soutenir naa ko à distance. mais est-ce que mënu wax ni tamit euh, daa am ñu am courage wax rek mais ñi nekk ci APR maire bari nañ. bàyyi bàyyi waaw conseil loolu mënul mënul mënul ñàkk. frustration mënu ñàkk parce que aussi tey da nga nekk di liggéey mm. ah, liggéey boo gis aussi day laaj reconnaissance waaw ah, donc loolu moom dañ koy bari na ci ay frustré mais yow bàyyi nga wala bàyyi woo non non non man bàyyi ma bàyyi man non non man du ma bàyyi saa yow am nga ci dara ci Macky Sall nee na de première heure li ci ëpp waaw ñooy gën di jooy waaw ñooy gën di man du ma ba ah, lu tax doo ba déedéet damay kon ni liggéey ak moom looy liggéey liggéey ak moom jàppale ko mu liggéey dama ngi liggéey il faut ñu jàppale ko mu liggéey. jàppale ko ci génn di frustré ñenn ñi di coow parce que am na ñoo xamante ne yow nekk nañ fi ministre nekk nañ fi premier ministre nekk nañ fi leneen ak leneen ak leneen. Mm-hmm. ñëpp fu ñu la tànnee am na ko ñu bàyyi. donc bu ñu la bàyyee tànn keneen aussi il faut l'accepter. mais gisoo ne Mimi Mimi moom defe naa frustration mën na ko def mais Diouf Sarr est moom am na droit frustré moom. ah mais Diouf Sarr sama dëgguma ne il est wax parce que tant que moom ko ko officiellement. donc non c'est man yow depuis que nga nekk APR ba nekk yow nee nga ci ñi njëkk jàppale président ci nga bokk. waaw mais boobu ba nga ni yow ana lan nga ci am. maa ngi ciy liggéeyal sama askan. ci naka. di leen jàppale. non nooy liggéeyal sa askan mais est-ce amul ay regret nga jógee Djibouti foofu moo tane woon fii. Djibouti gën nga ñëw fii mais depuis lors est-ce que tey jii mën nga teg sa loxo ci nii. président Macky Sall lii la de. parce que d'après ni nga présenté woo parce que man bi nga ñëwee sax laay doog xam ne docteur en pharmacie nga. Mhm. mais pour lan parce que tamit booy politique am lu tax. xam nga tey kii ñu nommé président assemblée pharmacien la. Ah, ah. waaw bien sûr waaye kenn xamu ko gars xamuñ ko woon nii mais mu ngi doon liggéey. Ah. mu ngi doon liggéey jàpp liggéeyam. mais daan na nekk député ci résultat. waaw waaw ba tey. moo jiite woon SAPCO aussi. waaw hmm. mais aussi ci la nekkoon di liggéey moo tax affaire bi daal dañ ciy nekk di liggéey. mais reconnaissance lu la ci fekk waaw reconnaissance baax na soxla nañu reconnaissance aussi parce que euh, en euh, base nga yor yor base politique boo xamante ne quand même ah ñu fidèle la di la jàppale foo leen yëkkati ñu jóg. Mhm. donc ku sañoon aussi da ngay am reconnaissance boobu mais nag bu waree ñëw rek dina ñëw. Mhm. waaw hmm. hmm. foofu nga ko mais nañ ko ne jàppale rek ndax actuellement li taxoon ñu koy jàppale. vision bi mais li naan saagakat yi rek lay defal promotion. <laughs> maanaam ñi dàq kaas ci parti bi ñi dàq saaga ci lii bi ñi dàq xuloo sa maas gi daf mel ne. maanaam daf mel ndox mu sedd nga te mag yi mel ndox mu sedd yi dañ ko arrangé ñoom da leen tëj fale rek. waaw mais am na ñu ñuy jox ña xamante ne du ñuy saaga comme kan. am na ñu ñuy jox Macky bëgg na ku pànk de du ñuy saaga même mu saaga waxin la quoi. saaga voilà tey Amadou mi ñu jox premier ministre bañ ko wàccee affaires étrangères kenn déggu ko mu wax. Mm-hmm. bu ñu ko nee kaay def lii bu dem def kenn mosu ko dégg mu wax dara. Mm-hmm. d'accord docteur dafa liggéey la muy liggéey ba bañ mm-hmm. koy joxaate liñ koy jox. d'accord continuer liggéey. docteur man je vais pas parler ñu dem ci li nga xamante ni moo di nutritionniste nga également mm-hmm. euh, ñu wax ni jamono jii nii ñu toll. Mm-hmm. AVC yi bari na. car attaque cardiaque yi bari na malaise yi bari na. lépp bari na tey jii en tant que nutritionniste boo ko doon jàngat ci lan la mauvaise alimentation la wala lan la. ci lan nga ñuy ñu euh, conseiller. mauvaise alimentation bi li ñuy wax la malnutrition parce que nutrition boo waxee malnutrition rek gars yi dañuy jàpp toujours xale euh, xale wala carence mhm. mais malnutrition ñaar la dafa am malnutrition par défaut mooy am malnutrition par excès mhm. gis nga malnutrition par excès bi da moo ñuy sonal actuellement mhm. parce que li ñu naan euh, kii euh, le régime alimentaire ñun suñu régime alimentaire dafa complètement jaxasoo ñun waaw dafa baaxul ni ñuy lekkee baaxul ñuy lekkee baaxul li ñuy lekk on trop gras. on mange trop dañuy lekk lu lu liin diwlin. Mhm. wala graisse lu bëri graisse. suukar saf xorom suukar. Mhm. dañ ki lii xorom am pagay. Mhm. ba pare maintenant nag activité physique bi nga xamante ne moo ñu waroon a permettre <laughs> néew ñu kii kon duñ ko def. danoo ker léegi da ngay toog sa kër sax bu njëkk booy taal télé da ngay jóg bés bouton léegi da ngay toog fi nga toog yor say télécommande. mën ngaa toog. <laughs> <laughs> bàyyil gaaruwaale bi nag de <laughs> mën ngaa ci toog huit heures ba midi waaw doo jóg fi nga toog yaa ngi ci oto bi di zappe rek waaw hmm. Hmm, boo jógee mhm. dugg sa oto doxi ñëw toog hmm. amul marche amul dara donc on a completement déséquilibré suñu régime alimentaire donc loolu vraiment te tey maladies yi nga gis yëpp les maladies chroniques yëpp ba sur les cancers yëpp Mhm. problème alimentaire da ciy joué. hygiène alimentaire la ñu amoon. hygiène alimentaire amuñu moom la ñu amoon. moo tax te te te loolu sax fa mu commencé moo sori. Mhm. muy ndax tey boo waxee am na lu ñu naan la théorie des mille jours. Mhm. mooy lan. théorie des mille jours. mooy fi jigéen bi jëlee ëmb ko fi doom ji di amee deux ans soo ko calculer ça fait mille jours. gis nga mille jours yooyu. waaw boo ratee alimentation bi. lu ci bëri ci conséquences yi ñëw à l'âge adulte fa lay jóge hmm. euh, xaw ma moo tax tey jigéen bi nekk en état hmm. même sax tey ku takk jabar waaw muy ndaw si muy ku góor ki hmm. seen alimentation dafa war a correct fa lay jóge mu indi xiibon kii yeeg fa lay départ il faut ngeen am alimentation correcte ndaw si nekk en état pendant leen neuf mois il faut am alimentation correcte équilibrée maanaam ay sullu xoog kii yooyu doomadaal yooyu baax la yooyu la ba pare di jël fruit xam nga Sénégal yi boo nee fruit bi rek. ñu defee ne ah, patron nga fruit surtout waaw mais mais. patron waxal rek bëri na fruit yoo xamante ne tey. Hmm. locaux la sidéem yaa ngi fi. waaw locaux mu ngi fi. Hmm. new new mu ngi fi. bu yëngu waaw ay fruits locaux. mais boo yaakaar fruit rek yaakaar ne. loolu yow c'est que gàtt ga. Hmm. pomme raisin affaire yooyu lañu yaakaar alors que c'est pas ça. bëggoon naa bëggoon euh, malheureusement temps bi jeex na <laughs> mais bëggoon naa ñëw sax ñu ñëw ci garabu garabu yi mais malheureusement jotu ji ak garab yi ñuy joxe ak li mu mën a jural euh, ñi nga xamante ni ñoo di seeni patient Omar looy tëjee ñu bàyyi ko tëj peut-être lan mooy position troisième mandat. <laughs> non position man bi ma la ma ci am depuis 2016 wala <laughs> avant la. Eh. Mhm. du sax troisième mandat mais deuxième quin deuxième candidature la. Hmm. te man li ma gis loolu sama position personnelle la ba ñu defee révision référendum. 2016 hmm. Paris président bëgg a wàññi sama mandat de sept ans indi ko cinq mais conseil constitutionnel na ne ko mënu loo ko wàññi mandat bi bokk ci donc sept ans yi mënu ko wàññi donc lii rek l' article bi c' est très clair la durée du mandat est de cinq ans. Omar foofu lay jeexee temps bi jeex na ñaari cinq des na beneen cinq ans. non non non bàyyi li ngay wax. des na cinq ans moom ci boppam waxoon na ni lii mënatul léegi maintenant nag moom des naa des naa sa position. waaw moom la engagé. amul engagé wax na ko ba pare. waaw kon nag ah, quand waaw xam nga actuellement aussi li ñuy wax hmm. boo njëkkee yow borom ndékki aussi di nga tëdd li amul ndékk yow borom ndékki <laughs> bàyyi ko mbir mi borom ndékki danaan wax ndékki li ñëpp ko bokk <laughs> waaye bu yeewoogul nag nañ xaar yeewu ah, mbir di jeex na deret invité lañuy xaar ñu bàyyi maa ngi leen di ah, gërëm ci invitation bi vraiment di ko rafetlu parce que Walfadjri aussi bon euh, dañ ko yàgg a suivre mm-hmm. depuis ba muy nekk euh, rajo ses débuts donc euh, ba tey mu nekk vraiment di def liggéey bu am solo. donc euh, ñu ngi leen di féliciter di leen encourager. Mhm. Ah, di gërëm askan wi aussi di gërëm sama xale bi ma àndal Mamadou Diallo Kankal. Mhm. Ah, di gërëm population Latmingué yëpp nag bàyyiwuma kenn ak waa Ngor Almadi aussi. Mhm. ah di wax président.